biñu né dañuy reprendre le 2 xawoon ci am touti ñakaré parce que comme niko ko ñëpp waxee rek le constat est que euh, fièvre bi mu ngi yokku donc euh, bu féké mu ngi yokku ñu bëgg reprendre bon xalé wara dugg ci auto yi xam nga xalé mom transport en commun yi lañuy jël vraiment wara dugg ci auto yi bon nek en contact ak nit ñi té xam nga li mag mëna moytu xalé mënu ko moytu li mag mëna bayyi xeyna xalé mënu ko bayyi donc déjà maa ngi doon xalaat ne ils yi seront vraiment exposés bon yokk si aussi keroog bi ñuy convoyer les enseignants vers leur lieu de travail ku nek gis na dajalo bi fofu euh bu xanté beek euh, lépp dal boko xolé da ngay xam ne mom bu fi nit jëleewul corona rek c'est parce que dafa fekk né kenn ci ñom amuko ko. na élèves yi élèves yi parce que tey jii nii Limamoulaye condition yépp matonna pour ñu mëna jang mais. tey jii nii Macky Sall lu mu wax euh, report bi ñun nañ si ànd ak am na élèves yoo xam ne xawuñ ko woon dañoo ñëw ba fii ñibbiwaat am na kon book manque de communication boobu amoon na au niveau national heure bu ñu ko defee woon communication bi moom baaxul mënoon nañ bàyyi mënoon nañ ko wax avant ñu koy wax heure bi nii tey jii nii su waxee nii nañ arrêté cours yi arrêté nañ ko bu mu waxee dañ koy ubbi bien vrai que élèves yi amoon nañ ñaxt amoon nañ euh, ay jaxtu ay euh, ñaxtu ñu doon def si au niveau lycée bi mais tamit Euh, ubbi na ko nag dañuy ànd ak moom rek parce que li surprise la si ñëpp surprise la. moom lay moom li ma la mën a wax mooy li ñu waroon def lépp def nañ ko daanaka dara manqué wu te loolu liñ ko may mooy taxawaayu autorité yi euh, monsieur lépp loo xam ni lii moom la waroon def ci côté boobu def na ko. ba am na yoo xam ni sax xaaruñu ko woon muy ndox mu manqué mi toog nañu ci ñeenti fan amuñu ndox waaye ci waaw ci dafa amoon ay problème waaye ñu ko ko waxee dafa daal di woo sapeur pompier ñu indi ñu ndox service d'hygiène aussi bi ñu leen wooyee ñëw nañu ab laata ñu leen di woo sax ñoom ñoo ñu woo bi ñu ñëwee fekk ay classe yu tëju woon ñu woon désinfecté la bi ñu leen waatee dañ ñëw ma madame le commissaire également ñoom ñëpp ku si nekk. côté boobu amuñu ci benn jafe-jafe. li mën a nekk rek mooy ñu topp ci suñu njiiti li ñu wax. mooy euh, gouvernement bi mooy ministre bi suñu ministre de tutelle ak ministre de la santé vraiment li ñu wax rek ñun ci loolu lañ mën a tënku. ba xëy na bu ñu demee ba situation bi laaj leneen maanaam bu demoon tey ji ba difficulté yi bari euh, coow li bari leneen bari xëy na su boobaa dinañ xool benn formule. Euh, concertation mais pour le moment bon il n'y a pas lieu de faire tout cela bon la situation est là on l'a bien appréciée. Nous, nous sommes des auxiliaires de l'État. Nous ne sommes pas privés, nous sommes publics. Parce que ce que l'État devait faire, la charge régalienne de l'État, éducation pour tous, l'État ne peut pas le faire.

non année blanche man xalaatuma ko. Euh, dañ fi am ay ingénieurs euh, en formation éducation et cetera am ay techniciens yu xarañ yu nekk suñu ministères yi ak euh, ay collaborateurs yoo xam ni situation bu amee dañ ciy xalaat xool ni mu gën a rationnel la ñu defe ko noonu année blanche man amu ci sàkka ni dina am. année blanche puisque fi ñu toll kay moom année blanche moom moom rek lañ mën a xalaat mënuñoo xalaat leneen. parce que fi mu nekk boo toogee jàngaloo parce que école lee mu tëj ah nan lay doon nan lay mën a mën a ñàkk a doone année blanche déjà des na bu ñu commencé woon jàng nii sax xaw a jéem a jéem sauver euh, année bi waaye jàng ñu fi ba léegi ba période bi ñu nekk kañ la ñuy jàngati ku ko xam. ah année bi moom nooy année bi moom yaakaar naa ne pour ñu sauver ko dina sincèrement buguma année blanche nak année blanche mom franchement ñaanalu ma ko bi dal parce que ñun mom graw ñun chaque année dañuy ñëw jàngale mais élève bi mooy perdre un an ci année am moom mooy perdre un an ci vie professionnelle am comme suñu benn prof ni mu ko daan waxee université boo redoubler wala nga def année blanche tu perds un mois de salaire ñaanaluma ma leen ko. dañuy traîner waat ay lacunes comme d'habitude jamono yi grève doon am dañuy sauver année bi traîner ay lacunes donc ren ji corona moo ñu jàpp ñu sauver waat année bi traîner ay lacunes c'est vrai que dina xaw a metti